moom mi ne xale bu baax la woon am yar lool disponible am teggin bëgg borom këram jàppale ko bu baax soutenir man xam naa ci lu bari ndax weeru koor gu jot gis ngeen ñu fay yamal ay plateau te lu ci bari moo koy coordonné te kenn ko gis bu lay jox xaalis sax da koy nëbb ndax discrétion nekkoon ku fonk borom këram bi ñuy mujj jokkoo daaw téléphone mu wax ma damaa bëgg a pégal sama sëriñ ndax xam naa ni waxtaanal ko sëñ Mbàkke Muhammad mooy li ko gënal ma bëggoon anniversaire am manoon naa woo ku nekk mais yéen ñi tagg yenant bi laa soxla yéen ñi waxtaane diine ñëw leen ngeen bégalal ma sama sëriñ mu tolloo woon ak weeru octobre defe naa duggaat nañ ci naa 14 la su ma ci daaw ñu ñëw taxawal ko ko fële ca cité kër góor gi euh, loolu di lu rëy luy wane ni kon ku bëggoon diine la euh, ku disponible la woon boo ko woowee jotoo ko dangay gis mu ràppale la wax la li ko teree jël téléphone te loolu lépp respect la euh, ku bàyyi woon xel bis bii ko dal tey te nekk sunu kanam ñun ñëpp bàyyi woon na ko xel kon nu ngi koy ñaanal di masawu jullit yi fi teew yëpp di marsawu këru diine yëpp ndax amoon na relation bu rafet ak këru diine yëpp donte ku nekk xam na taalibe la woon waaye këru diine yëpp la duggante la nekkoon ku yaru nekkoon ku disponible ñu ngi marsawu sunu rakk Bougane Gueye Dany mi nga xam ne mooy boroom këram euh, fonkoon ko lool ma xam tey li muy ressentir ci tristesse di ko ressentir ci consternation di ko ressentir ci ay douleur loolu la plupart des Sénégal moom la ñuy ressentir kon yàlla yàlla xaare ko defal ko yërmande am nañ ci nag rafet njort ndax boroom këram gërëm na te yenent bi alayhi salaatu wasalaam dafa wax moom li gën a mat ay wax ci nit ñi gën ci ñëpp nekkoon ki gane àdduna ci weer wii te weer wi jeexagul yenent bi sallallahu alayhi wa daa waxoon ni iza sallatil mar'atu xamsaha wa saamat shahraha wa xafizat farjaha wa ataat zawjaha mu ni boobaa daxalatil janna mu ni jigéen su fekkee mu ngi julli waxtu yu juróom di woor weeru koor ni mu ware sàmm boppam ba du mooy yàlla jëkkëram kepp ci la yem nekk tam koo xam ne topp na jëkkëram ci ay ndigalam yenent bi ni kooku faw mu tabbi aljanna kon rafet na njort ci moom ndax boroom këram gërëm na ko tey ba tuur ay xéewal jooy te loolu yombul kon nag wane ni soxna moomi yàlla na yàlla wanale ko ak yenant bi alayhi salaatu wasalaam ndax weer wi mu génn àdduna di shahru rabiul awal mooy weeru gàmmu te matagul jeexagul weer wi waaw xam ngeen ni ci ñaar fukki fan yi ci la ñuy war a toll te boo ko seetee itam alxamis ji mu wàcc liggéey dafa dem ba dugg ci saan bi ñu ko jullee ba noppi la ko jébbal boromam te loolu borom xam-xam yëpp maase nañu ni ci yawmul jumaa lay dugg wala laylatul jumaa ci guddik aljuma kon première guddeem guddi aljuma nañ ci rafet njort bi ci des tam wéy juróom bu jigéen gërëm na ko yóbbante na ay kàddu wax ni xale bu ko noppal la woon ku am yar la woon ku am teggin ku ko doon jàppale kon nag ku sa yaay gërëm sa baay eh, gërëm la ah sa borom kër gërëm la ñi nga daan séqal ñëpp ci wàllu liggéey itam gërëm la nga boole woon ci disponibilité yaru discrète courtoise disciplinée intelligente teey loolu yëpp boole woon na ko yàlla bu ko cat jiitu ci bàmmel yàlla yàlla yaatal bàmmel bi defal ko ci yërmande man rarement laay ñëw ci jataay yu waaye li tax ma ñëw ci personnellement ma ak moom waaw parce que yar bi ma wanoon respect bi ma wanoon musuma sàllalu sama ndijaay rek la daan wax fonk ma lool di ma woo di ma nemmeeku su weeru koor jotee mu laaj ma lu ma xat-xat damay wax dimbali nga boole ñu ci kon ñu ngi koy ñaanal ñaan la jullit am waaw yii nag ñu koy bàyyi xel parce que avertissement la ñu koy bàyyi xel parce que signe yu foor la parce que ki dem ndaw la 42 ans xale la xale bu ndaw la 81 ans xale bu ndaw tuuti la kon nag ñuy bàyyi xel yi xam ni mu ngi ci sunu kanam yàlla dina jël mag dina jël ndaw dina jël góor dina jël jigéen dina jël ku baax dina jël ku bon dina jël borom titre jël baadoo la kon dee rek a fi nekk dee mooy dëgg moo tax am na bindkatu nasaraan bu mag bu ñu daan wax la comtesse de Noailles jigéen la woon ngi dëkkoon France daf daan wax ni on ne possède que ce je suis morte déjà parce que je dois mourir nit ki li muy xaar rek loolu la am te ñun ñëpp dafa mel ni dañoo gane àdduna pour xaalis si dee loolu rek moo tax ñu ñëw fi moo tax Théophile Théophile Gautier nekkoon ci jiite woon Parnasse tontu woon ko wax ni naître see commencer à mourir nit bi mu juddoo rek ci wàccaayu deyam la nekk mag ñi ñu wékku ñëpp ci ñoom bàyyi loo nañu xel lii mag ñëpp boo demee ci Cheikhul Khadim wax na ni fal mawtu aqrabu wa ëddha wa amar wa baxtatan yaati wa ma andu mafar nee na dee moo gën a jommalaate ci mbir yi gën a jege doomu aadama bi te ko nee na gën cee jommalaate waaye gën cee mën a bett doomu aadama parce que surprise la ndax mu doon prévoir euh, anniversaire bu borom këram kon surprendre na ko doonte tawat ji bett nañu bari waaye surprise kon dee day ñëw ci mbetteel dafa wex tam dee lu metti la ndax nekk ci nit jékki-jékki ku la gisati dalaa fekk si wara a fanaani ci bërëb boo xam day noor sa kaw nawet sa kaw di taw ci sa kaw loo fa jëful doo ko fa fekk jëf fekk wóor Serigne Touba firi woon na ko firi woon na ko mas naa wax ni waxi làmbikat yi ñuy làmb seen wax jooj ñuy wax ndax xam ngeen lu muy wund mag ñu ne ko Mbàkke dimbali nu ci mu ni boo déggee ñu naan làkk dem na koo kóoni bàgg war na mbaam wuré wa dem na kë nga waxi mag dem na ndañ taali lu waaye doon jaay léegi ma lamb Sëñ Tuubaa nee na ndax xam ngeen lu muy firi ko bëgg nañ koo xam dégg ngeen ko noonu mbokk yi seede yi nga xamante ñu koy seede ci kii nga xamante moom mooy Momy Seck nekkoon euh, soxna ci kii di nga xamante moom mooy euh, Bougane Gueye Dany nga xamante moom mooy euh, PDG des médias